baay baa ko fal ci xarnu bi sëriñ baara baatin ba jaaxal na ko joor mu tooñu ko lam ca biir boo ko gisee ma ngay bëggeen ni kuy lu mat ci xarnu bi fa yaa jaboo jaboon a laaw